xamante ne moom moo di le président de Pastef Ousmane Sonko dal di ànd ak Bassirou Diomaye fay dem fa nga xamante ne moom moo di ca palais de la République mhm. sa analyse ci daje gi nga xamante ne dem nañ daje ko ak njiitu réew mi ak dil wa nga xamante ne ñu ngi ko doon wax muy la nga xamante ne moom moo xew ca Cap Manuel ban jàngat nga ci mën a indi loolu dañ ciy sant yàlla ndax mënul ñàkk euh, élection bi jeex na am nañu président de la République bu bees mu soqi ko ci benn coalition ba pare nag bokk ci benn parti donc ñoom ak président bi nga xamee ne moo fi nekkoon te war a dem mhm. foog ñu wax te gis nga Sénégal gi sama waajur ci Ablaye daf ma daan wax naan boo waxulee koo jéppi du am koo waxal dañu bàyyi di dof doflu bu ñu bokkee réew mi lu mul jafe-jafe jafe-jafe il faut que ñu nangu di wax ñàkk nangu di wax moo ñuy dugal ci ay jafe-jafe mooy tax mbir yi di teeg mooy tax ñuy saagante mooy tax ñuy reyante li ñu war a wax bu fekkente ni ki lay wax ki ngay waxal moomu la jëndu la munu laa jaay lu lu amul mais waxal ak moom parce que dans tous les pays du monde même diggante États-Unis ak Union soviétique dañoo am téléphone rouge mm-hmm. muy Russie tey jii mm-hmm. bu cóolee ba cóol am na nit ñoo xameen ñooy dox ci diggante bi dina am jetaay yoo xamee ni ay rencontre yoo xamee ni kenn du ko nettali kenn te benn rajo du si jot ba di ko ba di si ba di si wax mhm. addina moo mel noonu am réew mhm. kenn du tëj bunt yëpp tëj parenteer yëpp tëj prox ndoll yëpp mais nit ki bu fekkee da ngeen di xuloo ci politique munu leen waxtaan yoon bi gën a gaaw pour ngeen waxtaan mooy doo ko jënd ko ràpp ci kaso bi boo ko nee ràpp ci kaso bi kat di ngeen waxtaan par force kon deal ba ñuy wax am na. non bàyyi leen di wax deal ndax deal affaire tappale la. Hmm. c'est des responsables on parle du Sénégal on parle de mort d'homme de mort de femme de violence de retard économique ñu naan deal ban deal des responsables yoo xam ne ki seen taxawaay ci la enjeu politique gu réew mi nekk ñu naan deal lan la di dealee mais li bay doon dundee ba sax si kim xanaa bu goree war naa mën a continuer loolu ba faatu. Hmm. les gens sont des responsables c'est des hommes d'État. bu demee ba sës ba ñu ñëpp dem ci mur bi foog ñu waxante bu ñu waxante ça ne veut pas dire que ni li nga bëgg moom laa lay defal mais dañuy waxante pour trouver des solutions yoo xamee ni Sénégal dina si mën a gis boppam mais à mon avis c'est manquer de respect aux gens que de penser que ni deal am naag nangam ak nangam il faut que les gens soient un peu sérieux que ce soit dans la seconde guerre mondiale mais toog nañu première guerre mondiale toog nañu waxtaan nañu tous les conflits mondiaux yi am ba ci guerre d'Algérie bi mujj bi waxtaan nañu yaayu les accords d'Évian donc loolu du ñàkk ci àddina fu nit mën a demee ndigam Mandela moo dund lu ëpp vingt six ans et quelque ci biir biiri kaso est-ce que xam ngeen ni Mandela pendant des années jóge na ci prison ba nekk ci benn villa chaque jour délégation euh, tubaab yi nekk Afrique du Sud def délégation ak équipe Mandela yi ñuy travailler pendant des années ci nan la ñuy defee transition bi nan la ñuy fexe ba bu ñuy def transition bi dëkk bi du tàkk nan la ñuy fexe ba nga xamee ni doomu africain yi nga xam ne ñoo nekk Afrique du Sud mën a am un un patronat noir tout ça ci waxtaan lañ koy lijjantee loolu di la déedéet loolu mooy chercher des solutions de responsables et je pense que ni ils n'ont pas fait autre chose que cela et il faut que les gens en soient aussi très fiers parce que moo gën ñu nekk ci mbedd mi di gis euh, maire yu bëri dañuy jooy euh, bu ñu ci pouvoir bi nii dañuy bañ a jot ay fonds pour mën a defar seen euh, dëkkuwaay est-ce que bi ngay nekk maire Saint-Louis daan nga jot ay fonds pour mën a defar dëkk bi. xam nga man yàlla def ma suturaal ba nga xamee ni bi may nekk maire bi may ñëw ñaari oto moo amoon ca maire ba bi ma fay jóge bàyyi naa leen lu mat 60 véhicules quand j'étais maire de Saint-Louis j'ai pu réaliser 68 kër. ñoo xamee ni si affaire coopération décentralisée ak changement climatique bi ci laa ko lijjante pour mettre que ci disposition wu ñu nekk jàmminaar ak ñu nekk gendar te géej gi di yàq si seen kër hmm. bi ma nekkee Saint-Louis aussi euh, liggéey naa ba nga xamee ni Saint-Louis moo doon la seule ville du Sénégal boo xamee dafa am un transport scolaire gratuit douze bus yoo xamee ni xale buy jàngi ndar ci oto yooyu ngay dugg te doo fay j'ai laissé à la ville de Saint-Louis vingt cinq milliards d'investissement loolu lan lan moo la ko yombalal. non liggéey. état état bi wala état joxuma mhm. état état. Mhm. pour la première fois j'ai été capable convaincre état. Mhm. ci benn programme boo xamee ne du du man mii la tàmbalee samay prédécesseur muy Yarahma Ousmane Massecky Ndiaye. ñu convaincre état ba état nangu lépp xaalis. dénk ko mairie Saint-Louis pour mu réhabiliter l'île de Saint-Louis dans le cadre du programme mais malheureusement bu fekkente ni eh, da ngay liggéey te ñeneen ñi ñëw caaxaan ak foo ak politique rek a leen intéresé euh, euh, boo seetee place Baye bi nga xamee ne bi ma koy liggéey dañu def concours architectural ci jamono Ousmane Masseck. Mm-hmm. et cabinet international gañe ko. ñu war fa def un milliard cent millions. ñëw def fa ay trois cent et quelques millions yoo xam ne tekkiwul dara kenn xamul nu mu demee. yàq non gis nga Sénégal il faut que ñu xam ni lii ñuy dund nii te doon ko defee politique ci indépendance ba fi tey. moo ñu yóbbee lii ñu nekk lii yëpp il faut que nit ñi pare pour takk seen biir liggéey xam ne liggéey àndul ak euh, yaam ma neex ak maa la neex man mhm. j'ai assumé j'ai leur ai dit ni man bu ngeen ma falee dafa ma bëgg mu leer nañ sa xaalisu mairie bi kenn du ko ngénte kenn du ko dëje kenn du ko sabare kenn du ko caaxaane les gens te croyaient que je blaguais mais <laughs> dans lay réalités et les faits ils l'ont vu li loolu moom ma permettre ma am unité de gériatrie quatre ambulances médicalisées deux médecins ak une quinzaine d' infirmiers yoo xam ne dañuy wër ci biir quartier yi di faj nit ñi gratuitement gis nga développement liggéey la il faut que les gens gëm ni bu ñu liggéeyee yàlla dimbali ñu les pays en 1960 on te dit qu'on est endetté ñu ne Corée ñoo yem ci même système li tax ñoom ñu dem bàyyi ñu fi dañu doon liggéey ñu ñu toog di nelaw mm-hmm. nelaw gu metti gi moo war a dakk bu ñu ñëwee si euh, gouvernement bi nga xam ni euh, moom le président euh, Bassirou Diomaye war a teg moo xam conseil lay doon wala parce que gis nañu président Macky nii woon du passé vingt cinq finalement dañuy am une quarantaine voire cinquantaine de ministres suñ si boole ay ministres d'État yeeg yooyu tey lan nga yaakaar ni war na mën a doy comme comme comme comme comme comme nombre de ministres pour vraiment voilà donc Sénégal mën a avancer. loolu moom sëñ bi da nga may dimbali rek mu bañ ci dugg. Ah. pourquoi parce que tamit dafa sérieux wul daal. xam nga lu tax li am solo mooy est-ce que dinañu am équipe jàmbaar ak i guerrier yoo xam ne ils vont faire le travail ou pas. ñu mën doxal waaw bu ñu doon doon cinq wala ñu doon dix wala ñu doon vingt wala ñu doon trente peu importe mhm. nañu doon ay liggéeykat. nañu doon nit ñoo xamee ils seront au service du Sénégal nañu doon nit ñoo xamee ne duñu nekk di tànqal nit ñi ci télévision yi di parrainer gauche parrainer droit jël alal ji di ko saax saaxee ak fooy ak yu demee noonu il faut qu'on retrouve l'orthodoxie du management public des deniers publics et de la responsabilité individuelle du décideur par rapport à l'argent public loolu mooy priorité bi mm-hmm. ndax boo amee vingt ministres ñu doon vingt tappalekat nga bañ a leen am moo ko gën nga am cinquante ministres ñuy liggéey moo ko gën c'est pas ça important li am solo moom laa leen di wax di ko répété waat dañoo jiital nit ba pare buñ ko fa kasal nañu accepter mu natte ay koogam seet la ka doy ci li koy mën a permettre mu liggéey ku mu ci woo xayrun ku mu ci woowul nga jàpp liggéey ndax on n'est pas tous nés pour être dans gouvernement juddoo ñu ñun ñëpp pour dakk ndombal tànk et cetera et cetera chacun peut être ci cadre ba mu nekkee te qu'on libère que ñu may li lay war a suuri nañ may nit ñi jàmm et que lui il se mette au travail réalisation yi ñëw ñu xaalis bi dellu si que l'économie marche et que la confiance soit là bu ko defee ku nekk gis si léegi train de vie de l'État lan nga si wax yow. ah wàññi ba mu mat sëkk. wàññi ba mu mat sëkk. parce que côté laa doon gën a wax parce que tey ministre nombre ministre bi nga fal. mu nekk benn pléthore yi tamit di nga leen équipe di nga leen di nga jox ay jumtuwaay bu ñu xoolee tey oto yi ay 8-8 lay doon oto yu consommé oto yu cher d'abord mais yu consommé et que tamit booy dem da nga koy yóbbu wala boog keneen keneen du si nangu dugg même même concernant les députés également mais tey da ngay gis des députés yoo xam ne da leen jox 160 députés ku si jox la oto bu bees 4 x bu bees et que nga nekk président groupe parlementaire ñu dool la beneen oto tant que pour man côté boobu aussi tamit euh, war ngeen si mën a. yooyu yëpp yooyu yëpp ay chantier lañu. waaw yoo xam ne dañ ko war a xool defar ko. pourquoi nga jàpp ne dañoo war a jënd oto buy jar cent dix millions. pourquoi. tey 4x4 bu amee boo su defee 20 millions mu doon 4 x boo xam ne dina la mën a permettre nga def sa liggéey. nañu liggéey réew mi pour que génération yi ñëw. mën a am ay wit wit yi yu demee noonu. mais eh, fii mu nekk de dekk gu ñu fenn bëgg topp confort gi topp euh, néexation bi topp topp topp topp. mais si on dépense l'argent sur des futilités. on n'aura aucune chance pour liggéey réew mi. te la rupture nee naa la du discours. ay jëf la la ay acte la act yoo xam ne ni la dépense publique la commande publique lépp lu état di jënd ak di ko dépenser dañu war a xool réalité bi. Mhm. te jii boo demee marché état. dañ lay jaay benn rame de papier huit mille dix mille <laughs> wala douze mille nga dem marché Sandaga ñu jaay la que mille cinq cent wala wala trois mille wala trois mille wala trois mille cinq cent normal na imaginez le entre trois mille cinq cent ak dix mille di nga koy def foofu gab bi ci nekk parce que on a choisi mode boo xamee ni méngoowul ak li nga xamee ni mooy efficience yi waaw yow kuy wodd jot la woon ndax di nga booti gàmb mm-hmm. mais en tant que sànq yaa ngi fi toog ne yow euh, ndar ndar amul doomu ndar moo am Euh, nga nekkoon fa maire tamit yan relation nga am ak Mansour Faye jàmm ak salaam ak relation de travail ak relation politique d'opposant mm. entre kuy opposé wu ak ku nekk au pouvoir mm. leneen loo ci xamul Mansour ñoo jàngandoo ñoo bokkoon lycée ñoo bokkoon classe aussi donc euh, nit ñi war nañoo mën a am habitude